mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen andax ñun si rajo Rewmi FM dimanche bu nekk rek ñu leen koy daal di faral di ko amalee ci émission gox bi tey nag ñu am ci gan nga xam ne dafa jóge tey ba commune bu Madina Wandifa euh, département bu Bounkiling région bu Sédhiou moom la ñu war a dalal fii tey ci émission gox bi mu di defee Bayo nekk conseil ca mairie ba nekk itam ku ŋànk kàddu gi foofu. nekk itam njiital commission jeunesse ak euh, sport ak culture moom la ñu war a waxtaanal wala waxtaanee ci lépp loo xam ne nag jëm na aajo na ci euh, gox bu nga xam ni moom moo nekk ci commune bu wandi Wandifa moom la ñuy dalal tey Daffé bàyyo ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ni ñu nangulee invitation bi. merci beaucoup maa ngi lay nuyu Mbemba di la sant di la gërëm ci invitation bi nga ma invité. Mhm. Euh, di nuyu en tout cas auditeurs ak auditrice auditrices. Mhm. Rewmi FM. Mhm. Euh, di nuyu personnel bi yëpp. Mhm. donc euh, commencé ci kaw ba ci suuf. Mhm. maa ngi leen di jaajëfal. ok euh, dafay bàyyoo comme ni nga ko waxee rek conseiller nga ca commune bu Madina Wandifa laata ñuy xuus ci waxtaan bi bu baax xam ngeen ni am na lu ñu fi gane si mu di la nga xam ni moo jëm ci coronavirus. même bu fekkee ni fan yi yëpp ñu ngi jàpp ni la xam ni moom moo jëm ci chiffres yi ma ngay gën di wàcc tey naka nga gisee li nga xam ni moom moo jëm ci état bi nga xam ne tey euh, ja xeexu coronavirus bi ci lañ nekk léegi dafa nekk ci tendance baissière kaddu gu njëkk gi lan la. Euh, kaddu bu njëkk bi mais mooy comme euh, mu ngi tendance baissière comme ni nga ko waxee kon ñu daal di continuer fagaro bu ñuy nekk di def. Mhm. maanaam respecter en tout cas les mesures barrières. Mhm. ou si vous voulez donc mesures de protection yi maanaam li nga xam ne ni ñooy. Euh, nekk ci wàllum euh, wérgu yaram lu ñu mmh. wax mmh. lu ñu digal ñu def ko mmh. euh, maanaam raxas suñuy loxo solo ay masque parce que comme mu ngi wàcc donc faw ñu continuer ci loolu parce que loolu moo tax mu wàcc kon li tax mu wàcc faaw ñu taxaw ci ñu jàpp ci pour que vraiment wàcc boobu mu dem ba mu jeex fii ci Sénégal alors commune bu Sédhiou wala région bu baax bu Sédhiou gisoon nañ ñi ay weer ci ginnaaw xawoon na bu baax ci jàngoro bi ni mel naka ngeen def tey ba la nga xam ni moo jëm jàngoro bi ngeen xeex bi gën fa yokk tey mën nañ ni jàngoro ba wàcc na fa bu baax a baax a baax. Euh, jàngoro bi wàcc na fa bu baax a baax euh, comme euh, nu nga ko waxee li waral loolu parce que ñun ñi nga xam ne ni ñun ci douane ba donc dañoo takk suñu ndigg mhm. pour que vraiment ñu jëlee jàngoro bi di coronavirus mhm. jëlee ko suñu région. Mhm. jëlee ko suñu ay département jëlee ko suñu ay ay communes. Euh, ci loolu nag lañ moo tax ñu sóobu ci ci xeex bi mm-hmm. euh, donc euh, pour daanal ko mm-hmm. te en tout cas comme ni nga ko waxee. Mhm. Euh, gis nañ ni euh, ci région Sédhiou. Mhm. Euh, coronavirus mun nañ ne en tout cas diwaanu région Sédhiou waññ wàññi na fa bu baax a baax a baax a baax. Mhm. donc loolu li ko waral mooy dañoo jàpp ni. mbas la boo xam ne ni faw ñu takku faaw ñu takk suñu ndigg. faaw ñu respecter également li nga xam ne ni kër docteur yi lu ñu wax. ñu def ko pour que vraiment feebar bi ñu mun ko ñu mun ko jëlee fi. loolu lañ def te en tout cas yàlla. Euh, def na ba tey en tout cas coronavirus mu ngi wàññeeku bu baax a baax a baax a baax ci région bu Sédhiou. commune bu Madina Wandifa génn na koppar ngir xeex mbas bi ñaata la ak gis ngeen ba xam gis ngeen ci tey ay résultats. Euh, ñaata la boobu euh, peut-être que dina diis parce que xam ngeen ni corona bu muy ñëw dafa fakk déjà budget yi voté nañ ko donc amul budget spécial pour xeex corona. Mhm. sur instruction du président de la République. dafa ne ñu xool nan la ñu mën a réorienter. Mhm. nest pas pour que vraiment euh, corona bi ñu mun kaa xeex. Mhm. Euh, loolu lañ def ñu def euh, en tout cas ay réorientation mhm. budgétaire pour que ñu mun a def face n'est-ce pas à cette pandémie là. donc loolu def nañ ko ci loolu nag mënuñu la wax réellement ñaata lañ def mais li ñu mën a wax mooy. xam nga dafa am ay comité am na comité communal am na comité départemental. Euh, am na comité arrondissemental. nous nous sommes dans une arrondissement ci arrondissement lañ bokk. Euh, ci loolu nag euh, la municipalité à sa tête l'honorable député maire Malang Seydi Fati dañoo appuyer comité yooyu. donc ñu appuyer comité départemental. ñu appuyer comité arrondissemental ñu appuyer également et accompagner. comité communal. parce que on est dans une commune ci commune lañ nekk. Mhm. donc commune boobu non seulement après accompagnement euh, après appui dañ leen war accompagner. Mhm. Euh, ci loolu nag may profiter occasion di euh, gërëm en tout cas ces jeunes mhm. ñi nga xam ne ni en tout cas nangu nañ. vraiment taxaw sur le terrain wàcc sur le terrain ci marché yi ci entrée communes yi ci garage yi ci en tout cas les les les garages de Jakarta et cetera et nit ñi. mun a raxas seen loxo. Mm-hmm. parce que à un certain moment loolu moo euh, moo war. Mm-hmm. nit ñi raxas si seen loxo. Mhm. donc euh, ci marché yi balaa ngay dugg ci marché. Mhm. jeunes yaa ngi taxaw foofu di la di wax nit ñi raxas seen loxo. Mhm. balaa ngay dugg ci commune bi parce que nous sommes une commune Carrefour xam ci ñëw. donc euh, euh, bi. dañuy wàcc raxas seen loxo. donc avec l' accompagnement de de de la mairie. mais également avec l' engagement de ces jeunes. qui ont vraiment ñi nga xam ne def nañ lépp. pour que vraiment mbas mi bañ a dugg Wandifa la preuve. à Médina Wandifa benn cas rek la ñu depuis ba mbas bi mbas bi commencé ba léegi mm-hmm. benn cas rek la recensé mm-hmm. Mm-hmm. te cas boobu aussi cas importé la donc bu mu ñëwee nest pas lañ constaté ni donc dafa am euh, dafa am euh, feebar bi donc automatiquement ñu ñu euh, ñu jëli ko en charge et tu vois depuis lors ba léegi engagement bu ñu jël ci lañ nekk. Mhm. ba yàlla def ba léegi euh, te amul euh, benn cas. Mhm. naam mi ngi wàcc mais ci jàngoro bi mais kam jural na leen communes yi tey ñu bëri ñu ngi jooy ci wàllum koppar ndax li ñu xas génn génne rek bëri na mel na ni lu ci bëri deseetu si yéen naka ngeen koy dundee tey ci mairie bi. oui euh, je que loolu euh, national la. Mhm. voire même mondial. donc corona bi dafa laal ñëpp. donc moment yi ñuy dund. c'est des moments très difficiles. Mhm. Euh, mais néanmoins, je pense que la population aussi, la population aussi va comprendre mhm. que ren euh, euh, corona la. Mhm. donc muy budget muy en tout cas lépp li nga xam ne nii peut-être que bëggoon nañ ko def. n'est-ce pas ki ay réalisation pour cette année donc mun nañ ne euh, corona bi. Euh, moom moo fa jaar corona moo donc je pense que population bi ah, la population a compris. et en tout cas nous. ci suñ biir également on a compris. que ren. n'est-ce pas mun nañ ne euh, budget euh, corona la même si comme ni ma ko waxee mhm. amul benn budget bi nga xam ne ne on avait déterminé on avait voté mhm. nest pas pour euh, pour mbas mi mhm. mais sur instruction du président de la République son excellence Macky Sall donc def nañ ko yaa ngi doon tudd nii Wandifa wala commune bu Medina Wandifa ville Carrefour la boo ko gisee xaw na jege Conakry ak Bissau ak yeneen yi tey po commune bi naam balaa ngay dugal foofu dara faaw ak li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum réalisation commune bi tey lan lañ jàpp ni tey loo xam ne boo ko tegee sa loxo rek di nga ko jot ci réalisation lan la lan ngeen fa def tey. Euh, merci euh, balaa may ñëw ci réalisation bi nga xam ne ni peut-être boo ci tegee sa loxo rek nga nga jàpp ko mooy la nga xam ne ni dañ koy gis. Mhm. nest pas ci ay infrastructures. Mhm. Euh, ma ñëw ci réalisation yoo xam ne ni peut-être que tey boo fa demee doo ko gis. Mhm. des fois peut-être dem na parce que c'est c'est c'est annuel. Euh, mooy accompagnement bi nga xam ne ni chaque année euh, commune bi da koy def aux jeunes. Mhm. maanaam surtout ay ay say. ci ndaw ñi ci ndaw ñi. Mhm. Euh, mais également ay réalisations yi nga xam ne ni commune mu ngi koy accompagner nest pas ci. ay services nga xam ne ni euh, c' est des compétences transférées. Mhm. je veux dire par exemple au de santé. Mhm. je veux dire par exemple dans les écoles joxe mhm. euh, euh, yi. nga xam ne ni c' est destiné les fonds de dotation pour les communes et pour les postes la santé les fonds de dotation pour l' éducation les fonds de dotation pour la jeunesse ñu ngi koy joxe. donc yooyu ay. réalisation yoo xam ne ni peut-être que ñu ngi nii n'est-ce pas ñu li nga xam ne ni peut-être ñu ko mënuñu ko laal maintenant boo demee ci ay réalisation yi nga xam ne ni c'est des infrastructures Euh, nous sommes érigés en commune en 2008. Mmh. 2008, décret 2008, 748, du 10 juillet 2008. Mmh. Euh, après que maintenant on fa mmh. érigé en commune, 2008, 2009, l'année commencé de fonctionner. Mm-hmm. Déjà en 2010, l'honorable député maire, Malan Fati, a eu à réaliser la construction du mur de clôture du cimetière. maanaam euh, fi nga xam ne nii foofu la ñuy mujjee ñun ñëpp. Mhm. n'est-ce pas di armel ba bu njëkk ba ay mbaam ay xaj ñoo fa daan jaar. Mhm. bu mu ñëwee mu gis loolu. Mhm. mu ne cimetière bi euh, faaw ñu clôturer ko. donc euh, déjà en 2011 mais bien avant 2011 en 2010 bu ñu ñëwee Madina Wanfa déjà. dafa am benn problème crucial. mooy lan mooy lan mooy problème marché. suñuy yaay suñuy sœurs yi fan la ñuy defee seen marché. ci ay poto poto la ñuy dugg. pour jaay. ci ay porte-parole la ñu dugg pour dem jëndi. donc qu'est-ce que l'équipe doit faire. l'équipe premier projet c'est la construction du marché. def ngeen ko ñu tabax suñu marché. Euh, ginnaaw marché deux mille dix deux mille onze comme ni ma ko waxee. ñu clôturer suñu cimetière. deux mille quinze parce que amuñu woon hôtel de ville. dañ doon louer. le maire ne location bi mënul continuer. que c'est c'est c'est coûteux. Mm-hmm. donc il va falloir que ñu def benn investissement boo xam ne ni li ñu dugal ci location mun nañ ko dugal feneen. Mm-hmm. mu mu xeex ñu am hôtel de ville. Mm-hmm. n'est-ce pas R plus 1. ginnaaw loolu n'est-ce pas il y a le problème crucial. Oui. aussi crucial. c'est le problème de l'eau rek la ngeen fa euh, euh, suñ premier château date des années quatre vingt. mille neuf cent quatre ay euh, dëkk la boo xam ne nii ay kër ñoo fa nekk. Mm-hmm. mais tey boo demee Medina Wanfa xam naa dinañ ci ñëw ci kii boo demee Medina Wanfa dafa yaatu. Mm-hmm. donc forage bi fa nekkoon attanul population bi. Mm-hmm. donc ñu am problème ndox forage bande aussi des années mu ne sama beneen problème. bi nga xam ne nii sama tient au cœur. mooy problème ndox. mu xeex ba 2016 après le conseil des ministres. délocalisé bi nga xam ne def nañ ko Sédhiou mm-hmm. mu dóor ci table bi devant le président son excellence qui est sensible mm-hmm. n'est-ce pas aux préoccupations de sa population mu ne Médina Wandifa une commune comme Médina Wandifa ville vitre de la mm-hmm. Casamance mënul nekk sans eau monsieur le président de la république qu'est-ce que tu peux faire pour Médina Wandifa séance tenante le président de la république mu instruire ses ministres ku nekk na wax li nga mën selon ses compétences ñu def ko en 2016 on a réalisé donc euh, pour te que il y en a beaucoup. Mm-hmm. Mm-hmm. des salles de classe construites. Mm-hmm. am na wala bari. am na abri provisoire waaye bariwul. te ñu ngi ciy xeex. xam naa ci perspective yi ci lay bokk ñu ngi xeex pour que Médina Wandifa toutes les écoles de Médina Wandifa ñu nekk ay écoles sans abri provisoire. la preuve boo fa demee y de des classes ñi nga xam ne ni ñu ngi ci construction. donc loolu aussi c' est des réalisations yoo xam ne ni c' est des yoo xam ne ni ñu ngi sàkku. et incha allah dinañ egg et on sera à benn à Medina Wandifa sans abri provisoire. Mhm. fu may jeexalee ci ay réalisation yi nga xam ne nii c'est des réalisations peut non palpables. Mhm. nga xam doo ko mën a laal. Mhm. en 2016. Medina Wandifa était la quatrième commune la plus performante. maanaam commune yu gën euh, yu gën a xarañ. surtout ci euh, bonne gouvernance Médina Wane Fawa moo jëloon. quatrième dañ ko décerné woon maire très bien mhm. quatrième. Mhm. sur quarante six collectivités territoriales. ok et en 2017 ñu ñëw nekk première commune. Mhm. première commune. la première commune la plus performante. de la région de Sédhiou. sur les quarante six collectivités territoriales. ok donc c'est montré que. la gestion est bonne. la gestion elle est bonne. et le maire est ambitieux. c'est un travailleur. Et dans d'autres réalisations également, mmh. c'est dans le cadre des partenariats. Mm-hmm. Parce que le président de la République, excellent Macky a demandé aux collectivités mm-hmm. de nouer des partenariats. Partenariat, mun na nekk partenariat sud-sud, mm-hmm. comme mun na nekk partenariat sud-nord. Et nous, nous avons réussi, n'est-ce pas, à avoir les deux. En on a déjà signé un partenariat avec la mairie des Parcelles Assainies. Avec Moussa Sy. avec euh, euh, la mairie des Parcelles Assainies. Mhm. En 2019, mhm. on a signé un partenariat avec une société en Espagne dans la commune de Santander qu'on appelle société El Saco Utile. Mhm. ñi nga xam ne ni affaire mbalit la ñuy yëngatu. la de la transformation jusqu'à la valorisation jusqu'à la commercialisation. et cette année aujourd'hui ñu signé beneen partenariat. Mm avec la même ville mais cette fois-ci avec la commune n'est-ce pas de Santander en Espagne. un partenariat bi nga xam ne ni nous a permis aujourd'hui d'avoir d'autres réalisations mmh. parce qu'aujourd'hui vous allez à Medina Wandifa vous allez trouver deux bus mmh. deux bus mmh. deux ils ont été donnés par mm-hmm. cette commune de Santander bus yooyu pour la bus yooyu pour la commune la okay. commune lañ ko jox mm-hmm. n'est-ce pas commune bi mooy xool nan la koy nan la koy defee mm-hmm. en dehors de ces deux bus nous avons eu n'est-ce pas à bénéficier n'est-ce pas d'une ambulance d'un 4 x d'un groupe électrogène, euh, euh, mais également de deux moto mmh. mmh. des, des, motos euh, euh, tricycles, mmh. mais également des matériels de rechange de ces autobus. Mmh et d'autres matériels, d'autres petits matériels d'assainissement. Mm -hmm. Donc c'est pour montrer que. Mmh. Euh, maanaam réalisation am na fa. très bien tey lan moo leen gën a soxal tey ci commune bu Madina Wandifa la nga xam ni tey soxla ngeen ko dëgg wàllum tali infrastructure du fa ñàkk soxla ngeen ko tey. lu ñu gën a soxla aujourd'hui mmh. mooy Promoville. Mhm. piste yi mhm. avec euh, lépp. Mhm. assainissement canalisation euh, parce que aujourd'hui euh, Madina fa comme ni ma la ko waxee Carrefour la. munoo dem Casamance. jaaroo Madina fa boo buggee dem Kolda bu dee ni nga jaar. il faut nga jaar Madina fa boo buggee dem Ziguinchor il faut nga jaar Madina Wandifa donc commune bu mel ni Madina fa commune boobu dafa war a nekk commune boo xam ne nii. Euh, euh, euh, commune exemple là en terme de, de, de, de route, mm -hmm. n'est-ce pas, en termes de canalisation, parce que fooy fooy dem rek mhm. danga fay jaar. donc dafa war a set. Mhm. yoon yi dañoo war a baax. Mhm. donc loolu moo tax ñu soxla. n'est-ce pas surtout Promoville. pour que vraiment commune bi ñu ñu ñu ñu kii ko. mais également. wax naa la problème ndox ba léegi problème ndox baa ngi foofu. pourquoi parce que réseau bu fa nekk. c'est depuis les années 80. Mm-hmm. Donc on a besoin de redimensionner le réseau. Mmh. Il faut que ñu changer ñu redimensionner réseau bi pour que. Mm-hmm. ndox yi ndox bi ñëpp mun kaa am parce que aujourd'hui mm-hmm. du ñëpp ay mën a am ndox foofu. am na côté yoo xam ne ni ñu ndox. pourquoi parce que euh, tuyaux yi n'est-ce pas euh, c'est pas c'est pas conforme. nest pas ak commune bi parce que commune dafa yaatu. tuyaux yu ndaw lañ fa defoon donc aujourd'hui tuyaux yooyu dafa dañoo war dañoo war a jeex. mais également. Mm -hmm. nous avons besoin donc euh, euh, euh, de de de de construire. Mm pas de, de de un abattoir moderne. Mhm. parce que ba léegi à vrai dire. nest pas amuñu abattoir. soxla ngeen ko soxla nañu ko bu baax a baax parce que. Carrefour mhm. la ñëpp a fa nekk y a des gens qui sont là ñi nga xam ne ni dañoo soxla abattoir pour que vraiment seen liggéey bi aussi. Mhm. mun a mu mun a mu mun a dox. mais surtout suñu poste de santé bi. xam nga poste de santé maintenant élevé ko. mais mais bien sûr. Mm-hmm. Dramé. Mm-hmm. maintenant Nifa la population nous sommes à plus de 17 000 âmes. ok bari na car macha allah. poste de santé. te ce sont pas seulement 17 000 âmes yooyu ñooy fréquenté. Mhm. am na ñi nga xam ne dañuy jógee feneen. village yi village yi mhm. ñëw fréquenté poste de santé boobu. Mhm. donc poste de santé boobu aujourd'hui dañoo yaakaar ne mun nañ ko yokk. mu nekk centre de santé. mais également ñu yokk nest yi fa nekk. ñu yokk le personnel. donc loolu aussi vraiment euh, ça nous tient au cœur. ñu daal di ubbi léegi serveur bi 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 628 86 86 mbokk yi tam mën ngeen dugg bokk ci émission bi joxe seen xalaat ñu def ko ci njekk ak teraanga waaye am na lu nga xam ni fan yii yëpp wala ay weer a ngi ñu ngi koy wax problème bi nga xam ni moom moo jëm ci mbirum foncier ba ñu ngi ciy takkal sax ki nga xam ni moom moo di bokk moomeel bi di Malang Seyni Fati ne dafa def ab lotissement bi nga xam ne rek jaarut yoon ba tax na fan yee ñu génn am na marche bu ñu fa amaloon mbir mi nag mu ngay commencé bëri yéen ci mairie bi ngeen nekk problème bi fan la dooree ba ñu yegg si fii tey lan moo waral coow li. <laughs> Euh, Mbemba dinaa ci taw dinaa ci sawar tontu. Mhm. Euh, dinaa ci sawar lool. Mhm. Euh, lu tax ma wax la ndaxte dafa yàgg. Mhm. depuis kañ la ba pare. depuis février. la am ñu commencé di ñi Euh, lotissement bi nga xam ne nii def nañ ko Médina Wanfa mhm. euh, donc boo ma laajee lu waral loolu dinaa ci sawar a tontu. Euh, li waral ñaari mbir la. Mhm. benn bi politique la. Mhm. beneen bi règlement de compte la. lu tax ma ne politique la. xam nga maintenant ni fa 1900 léegi est-ce problème lotissement bi problème terrain bi am na wala amul dama bëgg nga leeral askan wi yëpp ne leen problème bi nii la am na wala amul. Euh, xam nga bu ma la nee problème bi euh, bu ma nee origine bi. Mhm. donc mhm. en réalité fa laa bëgg a ñëw. bismillah xam nga maintenant on est fa 1963 lañ ko mhm. sànc. ki ko sànc sama papa la. ki ko jur ak sama maam ñoo bokk ndey ak baay. moo sànc maintenant on est fa 1963. 2008 ñu nekk commune comme ni ma la ko waxee par décret euh, numéro 2008 748 du 10 juillet 2008. bu ñu nekkee commune commune la boo xam ne nii. yaatul. Mhm. déjà c' est quatorze kilomètres carrés. et en 2008. Mhm. il y avait pas plus de cinq mille habitants 2008. ok et aujourd'hui wax la ñu ngi plus de dix sept mille âmes. Mhm. le lotissement s'impose ou bien il ne s'impose pas. Nous, nous avons pensé que le lotissement s'impose. Et ce lotissement qui, s'est imposé, il faut ngeen xam ne ni ñoom ñu xam ne ni avant lotissement bii. Mm-hmm. am na amoon na ñetti lotissement yu jàlloon 85 amoon na lotissement. 96 mm-hmm. amoon na lotissement 2004 amoon na lotissement. Mm-hmm. et lotissement yooyu yëpp. maintenant fa population bi bëriwul. et pourquoi ñun bu ñu nekkee commune. population du yokku parce que ville Carrefour la. population du yokku ville Carrefour la. lotissement du am mhm. le conseil municipal mhm. bi ma bokk man mhm. ñun ñoo émettre le vœu ñun ñoo ne mais mënuñu ne parce que nit ñi déjà ñu ngi habité ñu ngi dëkk te mënuñu xaar ba nit ñi dëkk ñu ñëw def lotissement ñu lay mere ñooy ëpp parce que da ngay daan da yàq comme ni ngi yaa ngi dëkk te ñi yaa ngi bëgg a dëkk ni ngi yaa ngi ñëw ñu ne faw ñu def lotissement en 2010 ñu ne le conseil municipal mu émettre le vœu ñu yóbbu ko en conseil municipal ñu def délibération pour wane ni ñun dañoo bëgg def lotissement ñu def délibération bu ñu defee délibération sur les dimensions mais également sur les délais de viabilisation parce que euh, booy def lotissement il faut d'abord il y a des donc nga ne euh, dimension bi ñaata la euh, ñaata la ko war a def donc ñu def ko donc bu ñu defee loolu yëpp ñu d'accord ci ñu ne les quotas ñu d'accord ci mais du conseil municipal lu mu bëgg rek. Hmm. mooy am. bu ñu délibéré délibération bi dañ koy yóbbu ci approbation. autorité administrative yi nga xam ne ni moo moo yor le contrôle de légalité. moom mooy approuvé. ñu yóbbu ko pour approbation ñu def ko. Hmm. ñu dem 2011 2012 ñu nekk 2011. c' est élection yaa ngi ñëw en donc kenn mënul def dara. ok 2012 ñu def élection. 2013 mhm. 2014 yaa ngi ñëw kenn mënul def dara par élection président élection locale la. locale la 2015 ñu relancer. débat bi bu ñu relancer. Mhm. ñu gis na ni déjà am na benn CRD en 2016. Mhm. le 30 août 2016 ñu def CRD ci lotissement CRD bi nga xam ne ni ce sont les autorités. et les services compétents. ñoom ñoo nekk njiit. Mhm. Euh, euh, euh, problème liggéey bi maanaam lotissement bi. ok d' l'urbanisme mooy assurer le secrétariat et l'acheminement mmh. des dossiers. Mhm. ñu jógee 2016 le 30 août. Mhm. le 24 janvier 2017 ñu def CRD. Mmh. avec l'avis de tous les services, mhm. mais également avec approbation, avec avis, n'est-ce pas, des autorités. Mhm. Mais loolu yëpp. Mhm. ana kan mooy ne. lotissement boobu jaarul. avec avis yëpp. services yi. te da ngeen jàpp ni lotissement bi jaar na yoon. amul benn problème mais jaar na yoon. mais lu tax bu dee jaarul yoon lu tax ñoom ñu xaar ba deux mille vingt. ñu ne lotissement bi jaarul yoon. lan moo tax ñu xaar ba deux mais loolu moo tax ma ne la politique la parce que dama doon expliquer lotissement na la deme mhm. nii la lotissement bi nii la demee. léegi ñii nekk ci ginnaaw. ñii nekk ci ginnaaw mais ñii sóobu xeex bi ñii sóobu ci xeex bi. ñu ne collectif pour la défense. man je ne parle même pas de collectif de mhm. collectif. Mhm. xam nga booy nekk collectif. da ngay am papier juridique. ñoom amuñu papier juridique. ils n'ont pas de reconnaissance juridique li ñu wane ni ay collectif lañ. Mhm. donc moo tax man sama communication depuis février ba léegi. Mhm. du ma leen collectif. Mhm. les soi-disant collectifs. ah bon <laughs> mais ñoom def nañ marche de nee nañ. non mais euh, maire bi dafa. tax ci affaire bi. <laughs> marche bi dinaa ci ñëw. les soi-disant collectifs parce que. mënoo ne collectif nga nga ne tu es de la société civile. ou bien nga ne tu es un mouvement citoyen. te tu es un politique. Ah. parce que le coordinateur. il est de Rewmi. coordinateur. il est de Rewmi. le vice-coordinateur nous sommes du même parti mais de l'autre camp. ban camp kon politique bi seen la. mais mais mais bien sûr vous savez euh, honorable député maire. Mhm. Euh, bu ma la raconté euh, da ngay naan déedéet xam nga honorable quand il est venu en en 2012 il était avec le président Abdoulaye Wade. Mhm. parce que ñoom sax si seen wax dañ koy wax. Mhm. ñu ne le maire Malang Seyni Fati transhumant mais quand 2012 bu ñu ñëwee fekk leen ñoom. ci PDS fekk leen foofu. mais ci foofu la ñu nekk maire en ñu jël ñu ne euh, le maire il ne peut pas gagner les élections donc euh, on dit on va pas l'investir il va pas diriger notre diriger suñu liste mhm. mu ne leen y a pas de problème mhm. parce que ñu ñuy traité n'est-ce pas de de de APR Dakar mm -hmm. nous non nous nous sommes APR sommes pas APR de Médina Wane Fall on est dit d'accord ñu ne mhm. ñun dañuy jël donc dañuy dem suñu liste bopp ñu jël suñu liste bopp ñu gagné élection 2014 moom le coordonnateur du soi-disant collectif il était mandataire de Rewmi. ok à l'époque à l'époque mhm. ñu gagné ko. Mhm. ba léegi mi ngi mais bien sûr. le secrétaire du soi-disant collectif il est du PS. si suñu coalition la bokk. Mhm. léegi kan moo nekk ci ginnaaw ñoom. mais mais mais c'est des politiciens. kan la mais euh, xam nga avant février euh, euh, depuis février ba avant sortie bi nga xam ne nii. Euh, le le le le comment dirais-je. ci mm-hmm. nga xam ne ni le président du conseil départemental yónni. mooy kan nu mu tudd le chargé de mission Ibrahima mm-hmm. bu jour boobu. kan mooy président conseil départemental. mais c'est c'est Mohamed mm-hmm. euh, le président du conseil départemental. dafa yónni ay ndawam. parce que man je disais que et je j'étais sûr xamoon naa ni am na ay politiciens yi nekk seen ginnaaw ñoom ay politiciens lañ mais comme ñoom ñu ci maalaan seeni i fàtti dara mhm. mu am ay politiciens yi nga xam ne dañoo boot seen ginnaaw mhm. n'est-ce pas ñoom di leen di pousse di leen di leen di defloo di leen waxloo man a ñii ay politiciens ñoo nekk seen ginnaaw ñu ne ma mhm. déedéet man leen d'accord nañ dem danañ ko gis bu jour bi nga xam ne nii le chargé de mission du président du conseil départemental def sorti te mu nekk ci yoon président du conseil départemental mu nekk ci yoonam moom moo ko yónni di def ay distribution de masques dans notre mhm. parce que c'est c'est pas sa commune. Mhm. il est le président du conseil départemental mais dafa am commune boppam. Mhm. ko ban mooy commune am. ko Diaroume. Diaroume suñu commune. mu yónni ay ndawam. ñoom ñu def ñu def benn point de presse. ci point de presse boobu ñu ne lotissement bi jaarul yoon. justice dafa war a def le président du conseil départemental. Mhm. moo nekk seen ginnaaw. kon su ma la déggee mooy euh, moom du Diaité. Mhm. président conseil départemental bu Bounkiling. Mhm. moom moo nekk ci ginnaaw lotissement bi. su ma la déggee ni nga waxee sa raisonnement. effectivement euh, bu ma ko waxee. c'est parce que. ndawam. moo wax. ñu jël kooku man tey. jël kooku si ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay delloo maa lay delloo nuyoo. tur bi ak foo ñuy woowee. Euh, Ibou Sané la maa ngi wootee fii ci Dakar. Ibou Sané bisimilah yaa ngi ci biir waxtaan bi. Euh, voilà merci beaucoup euh, Dramé. Mhm, jërëjëf. maa ngi nuyu sa invité bi. jërëjëf dafay Bayo nekk président du conseil régional de la jeunesse du Sédhiou. Mhm. nekk chargé de la communication bu honorable député maire. Mhm. alors Dramé vraiment merci pour l'occasion mhm. et l'opportunité bi ñu may jox ni tey pour ma mën a wax ouvertement mhm. et en toute liberté concernant problème ou bien soit euh, foncier Madina Wandifa mhm. lan moo ci sa xalaat yow euh, voilà donc man sama xalaat mooy lenn euh, dafay il a si commune de Madina Wandifa nekk na benn commune carrefour entre région de Ziguinchor ak région de Euh, Sédhiou mais tamit laal na Kolda. Mhm. ba dugg euh, Gambie duñ ko laal. mu nekk position stratégique bi nga xamante ne tey ku nekk bëgg na fa dëkk. Mhm. Euh, te nag dëkkuwaay balaa ngay dëkk day fekk lotissé nañ ba pare. Mhm. sinon problème arrangement lay mujjee nekk te dina jur yeneen i gàllankoor. tey li ma gis ci commune bi. dama koy ñaawlu. c'est pas la bonne posture pour une commune bi nga xamante ne bëgg na décoller. Mhm. Euh, commune de Madina Wandifa nag. Mhm. Euh, man en toute liberté. Mhm. Euh, damay vraiment ñaawlu en fait position collective bi. parce que du position bu responsable. je l'ai toujours dit c'est la première fois may prononcer wu publiquement. daan naa ko def si samay texte Facebook. doyul ma jënd sama crédit ma ne xaaral ma woote. comme ça ñëpp xam lan moo ci sama xalaat. ok yàgg naa taxaw nag. di mhm. jàkkaarloo ak honorable député maire. Mhm. mais décision bii ni mu jël pour clôture commune man naan fa man tey gis naa nécessité bi. Mhm. te lu may rafet la ndax boo xoolee Dakar fii rek. ay communes yu mel ni wala ay diwaan yu mel nii ay jàmm gën. en fait lotissement bi taxu koo demee noonu. te tey population yooyu noonu ñu ngi ci. gàllankoor boobu noonu. léegi nag collectif bi nga xamante ne ñu naan xaw ñoom ils sont pour les intérêts de Madina man dama leen doon laaj ñoom. Mhm. dix ans yii yëpp ñoom fan la ñu nekkoon. Mhm. parce que dans la commune de Medina Wandifa il faut man je le dis il faut remercier jeunesse là bi nga xamante ne ils ont pris conscience que ni ñoom war nañ bokk war nañ def une conscience une naka lañ koy waxee. Mhm. une participation citoyenne et démocratique. te jeunesse boobu noonu ñu ngi koy def di di jaajëfal nag. vraiment jeunes yooyu nga xamante ne. ñu ngi ciy investir donte sax yeneen saa yi du ma ak ñoom si ni ñu koy doxalee. Euh, collectif bi ay politiciens rek ñoo fa nekk. Mhm. de réunis comme il l'a si bien dit. Mhm. et ñooñu c' est souvent à l' approche des examens la ñuy ñëw vraiment di andi li ñuy ay sujets pour juste voilà relancer wu politiquement pour jéem a yàq image keneen alors que. Mhm. ñoom ils sont passés par par des structures foofu si woon wala am na ñoo xamante ne ils sont ils sont xamu nekk lañ koy waxee élèves de un entre guillemets. parce que te kenn xamu leen. bu lañ nekkoon nekk na. ngoolaa euh, nga ñëw taxaw di jéem a vraiment tànkal nit ñi si ay histoire yoo xamante leer na intérêt mhm. Madina Wandifa moo ci nekk jërëjëf mhm. parce que à travers lotissement bi la tey la ñu mhm. am terrain stade stade bu bees église bi ak euh, cimetière chrétien yi si lañ ko génne donc gara garage bi euh, ak yeneen réalisation tey yoon yi yoon yi biir si biir commune bi yoon yi yëpp génne nañ tey courant baa ngi dugg ba nekk poto si biir àll bi sax tey am na ay poto mais bu ñu ko lotiroloon du du mën nekk les gens ne doivent pas vouloir le développement et son contraire. C'est mmh. pas mhm. possible. Mmh. Ok, ok. Euh, concernant la canne, l'eau, l'eau, et pourtant nous, on a toujours mené ce combat-là. Mais mhm. est-ce que ndox bi ci wooyu dinañ ko dinañ ko yóbbu foo xamante ne kiiwuñu ko nuñ ko loti lotiruñu ko mhm. tey Madina Wandifa c'est une c'est pas une commune a usage agricole il faut que les gens le c'est une commune à usage d'habitation parce que tey priorité bi mooy habitat bi de agriculture et d'ailleurs ñu ne ñu a pas d' espace. Mm-hmm. s' n' y avait pas d' espace. Mm-hmm. Euh, comment dire Pastef départemental n'allait pas habiter son champ au niveau de cette commune la mm-hmm. il faut que les gens arrêtent que les gens de bonne foi. Okay. Voilà, maintenant, euh, concernant l'honorable, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à améliorer et les gens doivent se pencher vers ça. en tout cas, je le félicite et je lui demande de redoubler d'efforts. Il a tout mon soutien et je vous battrai avec ça, allah OK. Voilà, donc c'était vraiment mhm. ça, ma position et euh, ma déclaration que j'ai voulu faire. Nit ñi ñu xam ni mhm. vraiment problème Madina Wandifa duñ ko régler ci par par par rancune. doo amal nit doo amal nit rancune nga bu ko régler. Mhm. nga fàtte intérêt Madina Wandifa. ok jërëjëf intérêt Madina Wandifa dafa war a jiitu lu nekk. dégg nañ la aujourd'hui si c'était pour des intérêts personnels ou bien des des des des positions je n'allais pas. vraiment approuver ce que. respecte ce la là Okay. Voilà, maintenant, si ça a suivi tout, toute la procédure ou pas, mm -hmm. Dafé est revenu largement sur ça. Merci. Mhm. Mais mm -hmm. le en justice. Merci beaucoup. Pourquoi, Merci. pourquoi, mhm. pourquoi tout ce brouhaha-là mhm. dégg nañ la jërëjëf may itam ñi nga xam ni bëgg nañ ñu dugg jërëjëf ñu ngi lay sant yow itam di la gërëm bu baax a baax comme ni niñ ko waxee rek dafay ba tey kon yéen da ngeen jàpp ni président conseil départemental bu Bounkiling moom moo nekk ci ginnaaw ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawal collectif bi ngir xeex maire bu Madina Wandifa. je dirais qu'il n'est même pas le seul. du moom rek. qu'il n'est même pas le seul parce que bu ma nekk qu'il n'est même pas le seul xam nga euh, euh, problème euh, foncier bu Medina fa boo demee à Medina Wandifa. Mhm. mais doo ko sentir sax waa Medina Wandifa yëguñu ko. mais ce sont les réseaux sociaux. Mhm. n'est-ce pas ak certaines euh, presse en ligne, mm -hmm. ça vous me le permettez, hein, mais, mais qui sont à l'origine également. Mhm. Euh, euh, si je prends des sites, mhm. n'est-ce pas, qui aujourd'hui euh, disent des choses sur le dos, non, non, de mon tout mhm. sur des choses sur le dos de honorable député maire alors que ne sont pas wàccuñu ci ci base bi ñu vérifier réellement est-ce que ñii lu ñu wax loolu mooy dégg wala loolu du dégg xam nga Ibou lu mu wax lotissement bi permettre la ñu am 39 kilomètres d'extension d'électricité lotissement bi. moo ko waral. Mhm. bu dul loolu duñ ko am. donc wax ji yëpp ay politique la. ay ay politique la ak ay règlement de compte. donc euh, bu ma nee règlement de compte xam nga le le le le le coordonnateur du soi-disant collectif. Mhm. ñu jël kooku ci ligne bi ñu jël kooku ci ligne bi salaamaaleykum. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. sëñ bi rajo bi. waaw wàññi rajo bi wàññi rajo bi. oui salaamaaleykum. waaw bisimilah tur bi ak foo ñu woowee. man la El Hadj Ousmane Diaby. Ousmane Diaby El Hadj ñu ngi lay ziar. depuis Madina Wandisa. waaw bisimilah acca bisimilah donc euh, maay rafetal émission bi. jërëjëf. di leen jaajëfal bu baax. jërëjëf. Euh, donc man ko lu ma ciy wax. Mhm. allo. waaw ah, ñu ngi lay dégg bu baax. Mhm. allo. ñu ngi dégg waaw ñu ngi dégg. allo. allo oui. ñu ngi lay dégg bisimilah continuel voilà donc maa ngi gërëm président Daffé. Mhm. ak ñi fi teew ci plateau bi yëpp. Mhm, jërëjëf. donc bon lu ma ci wax rek sama wax di ci sori. Mhm. bon maa ngi leen di déglu mais lu lu président bi wax. man loolu laay ñëw tuuti ci ko déggal quoi parce que. Euh, Madina Wandifa ñun jeunesse bi ñëpp ñoo ko bokk. donc euh, lépp lu ñu ci war a def dafa war a rafet rek hmm. mais hmm. Euh, lenn la ñuy comprendre hmm. ay politiciens yoo xamante ni euh, ñoom seen biir soi-disant collègue bi bu ñuy wax ni mooy Bakary moom toolam lotissé nañ ko te am na kayitam te ja foofu amee parcelle ba jaay ko ba su may wax ak yéen ni nekku bitim réew man nii di wax ak yow sama sama papa am na fi tool. Mhm. ay hectares la fi am. Mhm. mais euh, par exemple man sama papa buñ ko xaajal pour mu toog bi ba tax na na nekk tey lu ma fi am sax duma ko fi am. Mhm. kon ay politiciens yi nañu bàyyi di yàq suñu der commune bi nañ ñëw liggéey. ñun war nañu sant bu baax ci ma maire Malang Seyni Pathé à travers lu muy liggéey ci commune bi. ñëpp ko gis parce que quoi maire boo xamante ni am na premier mandat. Mhm. mu gañe ko ñu dem ci deuxième mandat. Mhm. population bi wóolu ko ñu yëkkati jox ko ko. Mhm. ñoom xam nañ fu ñu dem. xam nañ bu baax ci troisième la trois troisième mandat la ñuy dem. dañ ko koy jox incha allah bu soobee suñu borom. kon. mbir mi jarul xuloo jarul coo nañ wàcc ci base ñu liggéey munoo nekk Dakar. nga tëdd foofu pendant cent ans. doo ne doo wàcc ci base bi nga ne da ngaa bëgg a côté bi mënut a nekk. Mhm. Mhm. bon maa ngi dégg ngeen wax ci marché bi. Mhm. marché bi ñun xamante nañ fii suñu biir bu baax. marché boo xamante ni ay opposition Madina Wandifa lañ ñoom ñoo dajaloo seen biir. génne di wax euh, bon ñun bon toog nañ suñu kër déglu nañ ba ñu pare. maintenant ñu ñu ngi xaar nag comme dañu ne justice justice moom ñëpp la fi nekkal. na ko fi wala Sampa wala donc man loolu laa am lu ma ci. jërëjëf wax yi nañu wàcc ci base bi. nañu mhm. ñëw liggéey. Mhm. merci ma Medina Wandifa fa population ku bëgg ñu jiital la da ngay wàcc ci base bi nga ñëw liggéey. ànd ak population bi ngeen waxtaan diisoo. jërëjëf jërëjëf ok maa ngi leen di gërëm nag. jërëjëf jërëjëf Ousmane waxtaan bi euh, ok après amal nañ marche. oui euh, euh, comme ni ma la ko waxee xam nga marché bi. Mhm. Euh, pour te dire li may wax mooy dëgg. Mhm. marche bu ñu ko defee xam nga marche boo ko defee boo waxee da ngeen am benn porte parole buy jël kaddu. Mhm. nest pas di wax. dama yaakaar ni bu ñu defee marche le coordonnateur di soi-disant collectif moo war a jël kaddu ñu wax. mais bu ñu defee marche ba pare dañoo ñëw ci rond-point def fa benn meeting. ndaxte représentant PASTEF wax na. Euh, représentant euh, ñu ne des femmes. Mhm. wax nañ. maanaam daal la gën a nuru <laughs> si sa xel mais mais mais mais bien sûr politique la nuruwul sax ak politique mais politique la. Mhm. parce que bu dul loolu euh, ñu ne ay comment a je combat la boo xam ne ni combat citoyen la. Mhm. mais lan mooy yoonu. parti politique yi. lan mooy ci seen yoon. donc pour dire que ñun on a compris. que c'est la politique. la preuve. lotissement bi nga xam ne ni processus bi comme ni ma la ko waxee 2010 la. Mhm. ñu xaar 2013 am na ñu koy yëngatu. Mhm. ñi nga xam ne ni yëngatu nañ. Mhm. parce que nous sommes à la veille des élections en 2014 2014 ñu ñëw ñu dóor. ba léegi kenn waxul. parce que élection yaa ngi jub si. ñu ci wax. te comme ni mu ko waxee. le soi-disant collectif euh, le soi-disant président du de coordonnateur du soi-disant collectif. mais moom seen tool. pratiquement balaa ñu koy loti jaay nañ donc ñoom li ñu bëgg mooy. Mhm. ñu bàyyi leen ñoom ñi jaayal seen bopp. Mhm. suuf yi loolu duñ ko nangu. tey lan nga mën a wax tey askan wi man di fa di Wandifa ñu lay déglu ñu coowal suuf bi askan wi tam mën a xam lu baat bu wóor te leer ci. wàllu li ma leen mën a wax mooy. Mhm. lotissement bi dañ ko encadré. lotissement bi conseil municipal moo émettre le vœu. lotissement bi dañoo def ay délibération délibération yooyu. autorité administrative yi ñoo ko approuvé mhm. lotissement boobu dafa gis implication service compétent yi avec avis favorable mhm. de toutes n'est-ce pas les les les nga xam ne ni ñoom ñoo ci war a ñoom ñoo ci war a wax mhm. ñoom ñëpp wax nañ ci lotissement bi c'est légal ñoom ne nee nañ légalul donc ils ont porté plainte mais nañ xaar justice bi te te te te lu ma comprendre ci seen démarche tey dañuy wax li suba ñu wax lee parce que ñoom ñoo ne ils ont saisi n'est-ce pas le, comment dirais-je IGE, OFNAC, DESCOS, n'est-ce pas porter plainte au niveau du tribunal de Sédhiou après li ñuy wax encore ñoom dañuy fay dem kenn du leen tontu kenn du leen xool mhm. ils ont même accusé mhm. le commandant de la brigade de gendarmerie de Bounkiling ah, ouais. ah oui mhm. ils l'ont accusé jot ngeen plainte jotuñu benn plainte ñu jël kook ci ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi da ngay wàññi rajo bi tuuti. waaw bisimilah. waaw tur bi. Pape Kane laay woo la tudd. waaw bisimilah mun nga dugg ci émission bi Pape Kane Pape dafa mel ni. Pape la moom Pape rëcc na euh, ñu ngi koy jégal bu baax Pape Kane ñàkkul ni dina dugg ci waat kon donc da ngeen jàpp ni tey coow li. da ngeen euh, est-ce que jotul tey kon euh, ñoom ñu ñëw saytu bu leeree bu ñu gisee waaw walla itam jotul ngeen wax ak ki na xam ni moom mooy ki leen yónni est-ce que jotul ngeen wax ak moom. non ñun ñun ñun askan bi la ñuy waxal. Mhm. ñun amuñu affaire ak ñoom parce que bokkuñu gis-gis. Mhm. sur le plan politique. donc ñoom la ñu waxal. Mhm. ñun population bi moo ñu fal. Mhm. honorable député population moo ko fal ñun ñu fal ñu en tant que conseil ñun ñoo représenter la population. Mhm. donc tey bu ngaññi war a am. ñun ñoo war a añ ngaññi parce que ñun ñoo représenter la population. est-ce que président bi bëggul benn nit bu nga xam ne bëgg na ko teg tey Madina Wandifa moo tax coow li. non xam nga xam nga euh, euh, pour le président du conseil départemental comme ni ma ko waxee donc ñun ça nous gêne pas parce que ñun ak ñoom moom bokkuñu ci commune. mais ci département lañ bokk. on ne comprend même pas moom attitude am parce que tout simplement honorable député maire Malang Seyni Fati xale la xale boobu moo nekk aujourd'hui député du département mm-hmm. donc aujourd'hui on pense que mm-hmm. c'est la première mm-hmm. autorité politique du département loolu moo loolu la dul digérer salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam waaw ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi na nga def monsieur na nga def alhamdulilah tur bi Kouka Fati. Kouka Fati bisimilah. oui. maa mhm. ngi bëgg a dugg ci émission bi. acca bisimilah yow rek lañuy déglu. waaw jërëjëf. Euh, mhm. maa ngi tudd Kouka Fati. Mhm. maa ngi woote Medina Wandifa. jërëjëf. voilà donc euh, pour vraiment appuyer ce que Daffé vient de dire. wax leen ne. man sama intervention dama ko bëgg a résumer ci benn fànn. acca bismillah. xam nga comme euh, euh, yu ñu li ma précédé nii li ñu wax Médina Wandifa c'est une commune boo xam ne. Mm-hmm. ku ko lotir nit ñi dëkk. Mm-hmm. ñu bañ ko lotir nit ñi dëkk. Mm-hmm. parce que voici une commune en enregistre au minimum. cent à cent cinquante familles qui viennent habiter par année. donc foofu. c'est obligatoirement il faut ñu lotir ko bu ñu ko lotirul ay bi la ñuy am et comme vous le ça va amener des problèmes demain. Des gens vont faire des constructions. Euh, euh, euh après, on reviendra encore pour tracer une étape. Mmh. Donc, si cette vision, une bonne vision du député maire Malancé n'est pas mais puisque ailleurs les gens sont tombés dans ces erreurs-là, même à Dakar, il y a jusqu'à présent, il a des problèmes. Bon, demain, je viens chaud. Je vais citer Néma 2. Il y a des gens qui ont des Mm-hmm. parce que tout ça lotissement moo ko indiwoon. Mm-hmm. moom mu jël mu ne ñu lotir dëkk bi mu nekk une ville moderne. Mm-hmm. donc nit ñi bu ñuy dëkkee ñu am un esprit tranquille ñu xam ne fii mën nañ ci tabax tabax yu rafet yoo xam ne tabax yu cher. yoo xam ne bu subaa du am benn problème. léegi les gens. man li may wax toujours loolu la. parce que Carrefour euh, jaarame lu waay ji di wax. ñu ne ñaan bu nangu day sonnal borom. Wandifa Bayo moo créé Medina Wandifa. Medina Wandifa c'est un. c'est c'est un champ de notre champ ñun ñu dëkk Kandiabi c'est mhm. le champ des Kandiabi turam traditionnel sax dañ koy wax wusi bi mhm. foofu la nit ñi di ñëw di dëkk mhm. Wandifa Bayo ñëw sanc foofu dans l'histoire il était question yam de Bagadaji aussi qui voulaient venir habiter là-bas moom mu ñëw dëkk foofu mu ñaan pour nit ñi ñëw rejoindre ko pour ñu dëkk ci dëkk bi temps boobu day ñëw di wax di dem di ses amis dans des certains villages ne leen mais kaay ñu dëkk kër yi foofu boo leen ñëwee ma jox leen pàkk donc mu ñaan dem ci gis ñu baax yu yu baax yi sëriñ yu baax yi ñu ñaanal ko ba dëkk bi léegi alhamdulilah rabbil alamin dëkk bi ku ko mu mu mu nit ñi ñëw dëkk ku lëtiirul nit ñi ñëw dëkk ku lëtiir nit ñi dëkk mhm. donc on a eu cette euh, euh, vision ñu mhm. am une personne qui à la tête de cette ville muy mhm. am une vision extraordinaire dans tous les domaines parce que nit ñi li ñuy wax mooy dëgg c'est des rancuniers c'est de rancuniers baakari boobu bu ñuy wax noonu mais son petit frère. Mhm. ci kër yooyu la ci kër yooyu euh, kër yooyu la jaay pour dem Maroc mu ne day dem Espagne. Mhm. est que yaa ngi may dégg. allo mhm. allo waa maa lay dégg bu baax. allo allo maa lay dégg bu baax. yaa ngi may dégg. maa lay dégg bu baax tënk rek. waaw petit frère am boobu le président du euh, euh, du collectif. des intérêts du Petit frère am. man mii la jaar ci man la jaar pour que ñu signal ko attestation bu mu jotee attestation bu teere boobu la jaay dem. rëcc na ñu koy euh, jégalu bu baax xam nga lu ñu dese ci temps bareetul. Mhm. juróom-ñaari simili. Mhm. alors léegi ci lu gàtt maire bi ci tabax na li ñu mën a teg loxo tey foofu ca commune bu Manifa Madina Wandifa mais lépp gongo ñu jël kooku mooy mu auditeur salaamaaleykum. allo. allo waay. salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam na nga def. tur bi sëñ bi ñu ngi sant bu baax Pape Kane. Pape Kane Medina Wandifa. deux minutes Pape lan nga ñu mën a wax ci commune bu Medina Wandifa deux minutes. waaw bon deux minutes quoi je remercie dafay boobu mu nekk foofu ci yéen. Mhm. Euh, benn xale bu dynamique bu nangoo liggéey. mais mhm. pour le problème de lotissement. Mhm. lotissement bi fii ci Carrefour vraiment je pense que ne ñun bu ñu bu ñu nekkee ay gan jóge fële ñëw liggéey si fii. suñu teraanga yëpp nekk fii ñu bokk ci développement dëkk bi bu ñu ba war fi dëkk. nekk fi ak suñu njaboot. Mhm. est-ce que c'est pas normal que maire bi délivrer ñu ay terrain. Mhm. pour ñu dëkk. Mhm. ah. allo. waaw ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. te dëkk bi dëkk bi euh, ko comme dafa ni nga ko waxee ne maam boobu bi ko sanc. bi mu koy sanc moom dafa jóge feneen ñëw sanc ko. bëggoon gan lool nag. respecté woon gan lool. joxoon gan lool ak xam. bi maire bi ñëwee malansi ni fàtt yi mu c'est un combattant. Mhm. nit ku ku ku jàmbaare. Mhm. ñëw gis ne vraiment dëkk bi gan moo ko yor. parce que mhm. fii dëkk bi tey boo fi ñëwoon tey li fi gën a baax. gan ñi la. ñi fi dëkk bu ñu demee ba am courage liggéey gan ñi la. bu ñu fi ñëwee amuñu benn yitte lu dul liggéey. bu ñu a ba maanaam di xam ne dëkk bii nii. gan ñi vraiment dañ fi am importance ñu fi ak seen njaboot. te ñooñu di dëkk ci loxo sa mu ne. ok rëcc na donc euh, ñu ngi ci njeexintal émission mais c'est-à-dire waxoon naa ko ci sama benn euh, euh, interview man ne ay xénophobe la cest à am ay nit ñoo xam ne nii ñu nit ñu ñëw dëkk. Mm-hmm. alors que ñun ñu ngi feneen di fa di fa dëkk di fa mm-hmm. tabax. Mm-hmm. mais pourquoi ni Sénégal lañ bokk. donc deuxièmement man ne la bàq euh, le le le le coordinateur du soi-disant collectif ma ne la beneen côté bi c'est règlement de compte la. mais moom. frère dafa bokk ñi nga xam ne nii defoon nañ destruction de biens publics ñu tëj ko. le le le vice coordinateur du soi-disant collectif. mais dafa defoon dafa defoon menace de brûler le véhicule du du, du maire. Mm menace de brûler le, comment dirais-je la mairie. Mhm. ñu jàpp ko règlement de compte boobu laa la doon wax. kon pour vous dire que. Mhm. ñoom ñëpp. Mhm. am nañ ay attestation nañ ko delloo. ok léegi euh, comme ñu ngi si njeexantal émission bi kon da jàpp ni. maire bi moom bilan bu baax la yor war ko jox askan wi mais dafa am ñu ko bëgg a yàq. su ma la bëggee dégg dëgg. Euh, te duñ ko mën. Mhm. waaw léegi am na ñu ko bëgg yàqate duñ ko mën. Mhm. ndaxte population bi moo ko wóolu. Mhm. lépp lu ñuy wax ni ne Malang Seyni Fati euh, euh, tabax na kër. ñu jël ko <laughs> alo salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum sëriñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. alo waa ñu ngi lay dégg. waaw Pape Kane moo dellu si. waaw Pape Kane ci tënk waaw mhm, euh, bu ñu jógee fële ñu nekk ci dëkk bi di liggéey. ba mhm. nekk suñu njaboot war a mën a am fu dëkk. Mhm. maire bi ñëw lutti si dëkk bi jox ñu ay terrain ñu dëkkee ko. donc je pense que loolu amul problème. donc problème bi comme ni sama prédécesseur yi wax rek. problème politique la. ok te ñun ñu ngi jóge fii nii am na ñu jóge fii dem fu ñu jóge ci région bu ñu jóge. mais bu ñu demee foofu ñooñu am frontière amatul. Hmm. rawatina ñun nga xam ne nous sommes des sénégalais te fii Sénégal la bokk. donc le maire Malang Seyni Faty hmm. ne fait que son droit. ne fait que aussi itam euh, li ko war ci population hmm. parce que ci njaboot gi leen bokk ñun suñuy liggéey dëkk nekk fi nga xëy na bu ñu demee suñu kër duñ fa def weer suñu dund yëpp fii lañ ko fu ñu koy defee je pense que foofu ci lañ bokk te développement dëkk bi ñu ci bokk kon man gisuma benn inconvénient ci problème boo ñëwoon tey Carrefour xam nga Carrefour vitrine la ci Casamance. parce que fu waay dem fi ngay jaar. Mhm. Hmm? tey dëkk bi àgg romb na ci 17 millions yi sax ci dafa tudd Sanganing. Mhm. dëkk bi dafa boole te li ci ëpp boo ko xaajoon ay gan lañ boo leen gënoon ci gan yi tey dara du ko def. Mhm. ok ah? ok te normal kon ñooñu nga jox leen ay dëkkuwaay. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Ah? jërëjëf. te a fekk nañ fi ñoo xamante ni wax dëgg yàlla kooku moom dara ñoru ko lu dimbali liggéeykat. jërëjëf. ñu lay sant mhm. boobu nag vraiment c'est un jeune très dynamique. Mhm. et très courageux. te ku bëgg liggéey te ku bëgg gan itam comme maamam. merci kon vraiment ngi leen di ñaanal di leen encouragé. jërëjëf ñu koy Pape marché central jërëjëf loolu am na solo ñi kay ñuy gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu émission bi ca Madina fa tey ñu ngi ci kàddu gu mujj gi tey la nga xam ne moom moo jëm ci émission bi léegi maire bi moom day utaat beneen mandat. mais mais bien sûr. parce que population moom moo koy imposer. Mhm. tey bu naree ne du ko def sax population moo koy ne da nga koy def. Mhm. parce que dafa am lu mu sumb. Mhm. il faut mu égali ko. te fu may jeexale aussi mooy ñooñu. Mm-hmm. parce que maintenant ne faa xam nga boo boo moo tax bu ñu nee am na problème dama ne déedéet. Mm-hmm. parce que ñun amuñu suuf boo xam ne da ngay naan ay hectares la dañ ko jox n'est-ce pas diw non c'est des parcelle à usage d'habitation. c'est pour que nit ñuy dëkk. Mm-hmm. donc lu ñuy dëgg ci feneen feneen feneen feneen c'est pas en Médina Fall Médina Fall lotissement bu ñu def mhm. c'est à usage d'habitation ou bien pour des infrastructures ñun loolu lañ def mhm. dagguñu ay hectares parce que amuñu ko mhm. Médina Fall ñu naan Médina Fall amul euh, euh, euh, comment dire suuf pour pour béy mais Médina Fall du commune sax xam nga am na ay zone lu ñuy wax zone urbaine lu ñuy wax zone classée lu ñuy wax zone pionnière lu ñuy wax zone à terroir mais Médina Fall zone urbaine la amuñu espace pour béy amuñu ko parce que la commune quatorze kilomètres carrés la. donc nit ñi bu ñu naan amuñu fu ñuy béy wala non y' a pas d'hectare yi ñu joxe. amul parce que amuñu ko. mais yu ñu joxe. Uh-huh. mooy c'est des parcelle à usage d'habitation te incha allah ñu ngi ci ñu ngi ci nekk. Uh-huh. ba justice ñu ñëw parce que ñoom nee nañ ils ont porté des na ci seen diggante ak honorable. Euh, léegi ñun conseil yi moom <laughs> on est là. ñu ngi ci njeexantal émission bi émission bi dafa mel ni jeex na. Uh-huh. tey euh, kàddu euh, gu mujj gi lan la booy tëj tey euh, kàddu gu mujj gi. gu mujj bi mooy maa ngi ñaax ñëpp. Mhm. ñun ñëpp mel na woon ne faa la moom. Mhm. ñun ñëpp mel na woon faa lañu bokk. Mhm. donc nañu mànk mànkoo nekk benn. nañu ñëw ñu liggéey. tey mel na woon ni faa maalan seeni faate mënu fa nekk éternellement ce n'est pas possible. day jógee foofu kenn ñëw. kon tey dañu war a ñëw ñu mànkoo nekk benn. liggéey suñu Médina Wandifa ëllëg Médina Wandifa maanaam seen fàtte bu demee mm. ñu fay des aussi aussi ñu manko nekk benn mais aussi da lancer un appel à la diaspora mm-hmm. parce que aujourd'hui maanaam seen fàtte bi jógee fii mm-hmm. dem ba ci diaspora mm-hmm. di lijjante waa diaspora mën nañ ko def kon maa ngi leen ñaan ñoom tamit ñu ñëw wàcc si jàppale ñu. Mhm. ñi nga xam ne ni ñoo dañoo bugg a jiite Medina Wandifa. Mhm. faaw ñu wàcc Medina Wandifa dem liggéey parce que c' une élection locale. Mhm. te la politique elle est quotidienne. elle est sociale. da ngay wàcc ci base bi nga liggéey ñi ngi xam la. mais munoo nekk à Dakar pendant un an doo dem doo wàcc. wala nga nekk à l' extérieur un an trois ans doo wàcc nga xaar ba élection ñëw rek nga ne nit ñi xam la. on est plus n' pas dans cette ère là. ère boobu dépassé politique la nga ñëw pour ñu liggéey suñu gox nga ñëw mm. mais sudul loolu vraiment maa ngi lay gërëm Bemba. Mhm. Euh, di la sant di ñaanal Rewmi FM. n'est-ce pas mu gën a pas dem ci kanam. Mhm. ba mu nekk télé. Mhm. n'est-ce pas en lépp li ngeen bëgg ci ay lu baax. n'est-ce pas yàlla ko. lépp li nga xam ne ni ay la. yàlla musal leen ko. ngeen baal ma nag sama olof setul. waaw donc soose la. waaw ati mun nga ko tënk si wolof <laughs> ci tënk ko nuyu mbokk soose yi. donc mbaadi man ko ana kamalalu al baadi alterement dafay baayu. Euh, wala naata kanaa danku Mbemba Dramé émission laay kaa fo émission mu yegg gox bi donc kana ke kacca mbeɗina wande fa kumol mul ka fo a yalon kon tel mbeɗina wande fa kol mulɓe mbeɗina wande fa malon ko kuwol famɓe keeri mhm. réseau social lom anin presse en ligne olu mhm. walla a ko wajabindi par mhm. ni tata mbeɗina wande fa italonna ko banque kuɓe mbeɗina wande fa donc mbal tentula mbal jeela ka faale koko assalamu aleykum rahmatullahi taala wabarakatu ko duwa radio e mhm. fo altala se radio tañato a yake teleti n'est ce pas aya ɗo kuñol beso jata ken dani simani harje frani labañi ñanin tankoni sutorole ala barka amin euh, dafe di ko sant ndax ca commune bu Madina Wandifa la jóge daal fii ngir wuy ci émission bi ci gox bi mën a leeral la nga xam ni moom moo jëm ci problème bi nga xam ne moo am ci mbirum foncier yi fa la nga xam ne moom moo jëm ci commune bu Wandifa dégg nañ fii tamit luñ ko wax di gërëm itam ñi nga xam ni ñoom ñoo dugg bokk ci émission bi di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy suivre ci internet bi ci YouTube ci pas suñu page l'officiel bi nag di leen jox rek euh, dig daje ba beneen dimanche ak beneen invité incha allahu rabbi